santaane nañu liggéey bi itam dana jóg ànd ak ay kilifaam waaye dana jóg ànd ak ñi nga xam ci yàlla da koo boole ak ñoom muy seen jëwriñ ci kër Cheikh Mouhamad al Fadal ànd ak soppe yëpp itam dem ca liggéey ba ndax ku ne xam na ni liggéey rek si la ñuy jëriñu tey si la ñuy jëriñu ëllëg looloo waral mu fos yéene yëkkati kàddoom soññi taalibe yëpp bu àggalee nag danañu dellusiwaat wax départ yi nan lay demee ak kañ la kon ñun ñëpp ñu maasee teelu déglu Serigne Abdoul Karim asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi ñëw di ziare ñun suñu mbokk laa waxee tàmbali bi ñu ci suñu Muntaxa yi nga xam ne lépp lu ñuy def ci yoon moo ko moom liggéey bi ñu def ci Madina boobu ci diggante bi si ñëw waaye lépp yëpp si Muntaxa rek la. léegi nag daanaka man li ma jiwaa sax doon solo ndax sëñ Mourtada sëñ Mourtada bi nga xam ne mooy jëwriñu liggéey bi nga xam ne lépp lu si njaboot di def lu ci kër gi ci li jëm ci liggéey ak yeneen moo koy yiite mm-hmm. li mu wax ñëpp dégg nañ ko mm-hmm. nee na sëñ bi dafa wax ne ñu dem Madina booba mm-hmm. ci liggéey bi ñu war a def ci ngóob ak deqi wax na ne lu ñu gàmmoo alxames ajjuma samedi dimanche ci topp di benn fan ci novembre ci ci liggéey bi waaye nag sëñ bi nee na loolu dafa bëgg ñëpp fanaan yi samedi ndax bu ñu xëyee dimanche teel a jublu ci liggéey bi ndax mu mu mu bañ a naaj liggéey bi nag sëñ bi bëgg na mu gaaw waaye mel gi na war a mel moo ko gënal ñu liggéey ko liggéey bu set bu sell ah, la ci des nag mooy ay ñaan te dégg ngeen suñu waxtu laa mu ko ñaane ñaanal na képp ko xam ne ñëw nga ci Ahmad Cheikh moom ñun ñëpp ngi ci biir. Mhm. kon doy na. Mhm. li nag mooy liggéey bi euh, sama web ñi nga xam ne maay seen jëw ni sëñ Mourtada Mourtada Fall dana leen wax euh, départ yi oto yi ak waxtu yi. fi ñuy démarré yëpp dana ko leeral bu yàlla jërë ngeen def ko ni ko suñ bi bëggee dellu ci jàmm waaw déglukat yi woote baa ngi noonu soññee baa ngi noonu Serigne Abdul Karim moom Cheikh Mouhamad Al Fadel yëkkati kàddoom incha allahu taalibe yi nga xamee ni si ñoo ndekke Dakar ak li ko wër gaawu ci suba la ñuy déparé Dakar PA yi dem Madina booba ñi nga xamee si ñoo nekkee Touba ak li ko wër nag gaaw ci ngoon lañuy ñuy fii ci Touba Ndindi buntu kër Serigne Abdoul Karim Mbacké ginnaaw bu ñu waajee dem ci liggéey ba liggéey ba itam la war a doon benn fan ci weeru novembre incha allahu noonu la ko sëriñ bi waajale mu ci soññi taali bi yëpp ni mu ko waxee itam kuy dem na nga yóbbaale jumtukaayu liggéey liggéey bi góob la ak déqi ku ne xam na jumtukaayu liggéey yi ndeke jëkkatem saa yu fa Moussa dem fa la ñuy toog ba liggéey ba jeex ñu yeewee ñuy del ci wat noonee itam noonu rek la ko sëriñ bi yeesalewaat sëriñ bi nag ma ngi sant ñëpp ci li weesu wan te leen di séentu di ñaan yool bi nga xamee ni si yàlla dëxëñ na ko ci képp ku liggéeyal sëriñ Touba yàlla na ko yàlla defal jur yëpp defal ko mboolem koo xamee ni ci teew nga ca liggéey ba wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu